Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. ñoo ngi am mbégte di àddu ngeen di teewlu mbokku téléspectateur Equivox yi di leen wax ngeen dal jàmm ci seen émission Vox Arena mbokk yi tey nag ñu dellu siwaat fas yéene waxtaan ak yéen waxtaanu làmb ñu fas yéene cee ànd ak coach Mame Less waaye mbokk yi. dañ leen di wax rek nañu continuer di respecter mesures d'hygiène yi parce que dañoo am benn combat boo xamante ne moom la ñuy mënee face à coronavirus ñu naan ko Covid 19 ñu war a ànd ak moom xeex ak moom jëlee ko fii li ko fi jëlee mbokk yi mooy continuer di respecter mesures d'hygiène yi maanaam di takk masque yi di continuer di raxas suñuy loxo fu ñu toll di continuer di respecter euh, li nga xamante ne moom mooy couvre-feu bi gis ngeen nii jëlee nañ ko 20 heures léegi 21 heures la. ubbi nañu jàkk yi war nañ cee dem mais ak beneen façon ñu dem bu ñuy dem aussi ci marché yi ñu demee ci beneen façon ñu dem ñuy yokku di moytu parce que cas yi mbokk yi mu ngi yokku coronavirus mu ngi ñuy empêché national nationale tijji donc ñuy ñaan yàlla rek coronavirus bi daal di fi jógee ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy coach Mame Less ñu fas yéene tey yaatal lu baree bari daañu yaatal génération yi nga xamante ne moom mooy la ñuy wax mbéremese yi ci làmb ñu nekk ci antichambre VIP yi wala wàcc ba ci suuf tuuti combat yu neex yooyu nga xamante ne euh, mbër yi dañoo war a daje nga xamante ne chaque année maam maam lees danañ ko def promoteurs yi di ci gindiku di tëgg ay combat yu neex a neex waaye danañu dellu si waat avant loolu sax daal di jaale papa yu Modou sunu papa Gora Lo boobu bàyyee ko fi ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana waaye gis nañu aussi ni nga xamante ne moroomi mbër yi ñëw nuñ ko wuyu waaye aussi waa axlu làmb ndax keroog képp koo xamante ne bokk nga ci làmb ñëw nga fa teew fa wala ñu teewal la fa maam la salaamaaleykum. Euh, maaleykum salaam Cheikh Omar maaleykum salaam yéen waa groupe Equivox TV di nuyu El Hadj sama booy bu baax di ko siyaare di wax rek comme mesures yi yi ñu bañ a xeeb jàngoro ji chaque jour ñuy ñuy wàññeeku ñu ngi gën a yokk. ñii ñaan yàlla aussi ñu bañ ko soofantal naan lii amul ñeen ñi si da ngay dégg ñenn ñi ak mental bi ñu yor naan ay dóor laak nangam nangam xam nga loolu aussi du esprit boo xam ne esprit bu bien la bu ñu leen ay mesures ne leen toppatoo leen seen bopp toppatoo leen seen wér yaram kenn ku ne yaa mën a saafara jàngoro ji sa bopp. dëgg-dëgg war nañ cee jël mesure bu baax sàmmonteeg kàddu yi nga xam ne moom la euh, docteur yi wax raxas seeni loxo bam set. takk masque comme ni ñu takkee masque jël hydrogel yi waaw hydroalcoolique gel yi dafa di ci nettoyer seen loxo ba nga xam ne microbe bi du ko du contacté wu ak yéen aussi encore une fois di jaale aussi euh, bàyyi góor hmm. parce que buñ toogee fii tey te waxuñu lu mel noonu day doon beneen détail beneen affaire ndax gis nañ ñi mbër yi ni ñu mel ak bu combat taxawee ni ñuy dàkkoon fënte seen biir hmm. ni ñuy rënkompante seen biir tey ñoom la ñu wane keroog ci interdit sa kër Papa Modou Lo wane na làmb bu jeexee rek jeex na. jeex na Cheikh te day indi ak mbokk. Mm. parce que ñi ci bari boo xoolee jagante nañ jagante goo xam ne mbokk da ci dox te duñ ko xam. Mm-hmm. léegi nag ci xew yu mel noonu lañuy tasee wala ci ngénte yu mel noonu wala ci mel noonu ci yeneen i ay réception wala yooyu ci la mbokk gi duggante ba ñu xam ne kii jege ku la jege la donc ñi ñaanal bàyyi góor loo fa mu tëdd yàlla ko yàlla xaaree àjjana di ñaanal Modou Lo xolug muñ te moo xam ne am na sas. am na sas mbokk yi donc gis ngeen euh, keroog euh, fi nga xamante ne moom mooy armeer Yoff gis nañ fa comme ni ma ko waxee ñëpp ñoo xamante ne bokk nañu ci làmb su ma ko waxee daa gis ancien gloire ñoom Manga 2 ñoom Moustapha Guèye ah di nga fa gis Gris Bordeaux mi jiite euh, mbër yi en activité yi di nga fa gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy amateurs yi sax danañu ñëw jaale si ki nga xamante ne moom mooy Modou waaye gis nañ fa Eumeu Sène nga xamante ne aussi. adversaire Modou Lo bu mujj la. waaye ki nga xamante ne moom mooy adversaire am bu gën a euh, tàng seen diggante muy Balla Gaye déplacé wu daal di ñëw jaale ko. Lac de Guiers ma nga foofu. Lac de Guiers a ngi fa woon aussi ah. ak yeneen mbër. Mm-hmm, coach bu ñu ko doon lim duñ mm-hmm. fi jógee. mais euh, comme ni nga ko waxee Modou Lo dafa am sas. Mm-hmm. il n'a plus droit à l'erreur. ay wóolëreem ay wóolëreem ña nga fa. bàyyi pël ma nga fa waaw. Moussa Dioum ma uh-huh. donc gar donc gis naa ko fa. waa parcelle. donc xam nga ñooñu ay mbokkam lañu. Uh-huh. ñu ko jege lañ am naqar comme moom. Uh-huh. ndax euh, bàyyi góoraloo man mii xam naa ko ndax nee naa la am na sama xaritu yoo xam ne ci ci croisement Cambérène lañ yoroon garage yi ci bari matériel yi ci bari bàyyi góoraloo bañ a toog ak bañ a yaakaar ci Moodu ak ak ñafekat bi mu doon maanaam liggéeykat bi mu doon moo tax ne. chaque fois bu ñooñu war a jëlee ay bagages ak ci ci Renault boobu la koy jëlee. dëgg la waaw di ko jaale ñoom Pansissé bu baax ñoom Tamsir Kama ak suma mag góor a Diop xam nañ ko ñu mu doon fréquenté la yàlla na ko yàlla xaaree àjjana te yàlla yërëm ko Modou daal yàlla na ko yàlla defal jàmm fi mu jàpp yàlla taxaw ko. alors mbokk yi daañu waxtaanee tey aussi li nga xamante ne moom mooy combat yi nga xamante ne. si la ñu jëm wala moom la ñu bëgg mu taxaw. Mm-hmm. wala comme mbër yi nga xamante ne ñoo bokk ñoo nekk ay naataango. Mm-hmm. gis nañ fi ay combat yoo xamante ne ay combat yu am am solo la. Mm-hmm. nit ñi ngi mu ngi dëgër. tey ku mel ni caatu ak ki nga xamante ne moom mooy Mama ñëpp xam nañ ne lu neex la. lu jaadu la. ñaari mbër yu am ginnaaw lañu. waaye gis nañ ni combat boobu day takk. te fi muy takkee mbokk yi. ci Mama Lamine la. gis nañu yeneen combat tey. Jackson mu ngi fii mm-hmm. xale ndaanaan googu nga xamante ne deesu ko bañ ci làmb mm-hmm. gis nañ li mu def bërki dem njaay ki nga xamante ne mm-hmm. moom mooy euh, lak euh, rakkul lak rose bi muy euh, Pape Ndoye gis nañu aussi ki nga xamante ne moom mooy njaaytin ndaanaan la rakk ci tafaatin gis nañu aussi ki nga xamante ne Euh, ci dëgg-dëgg moom mooy euh, ki nga xamante ne xale bi nekk yaraax. caatu yaraax caatu yaraax. Mm-hmm. donc muy ay champion. Mm-hmm. caatu yo euh, caatu ngéwél aussi. Mm-hmm, bëri na ay champion coach. dëgg la xam nga làmb ji. tuddatul làmb. lu mu tudd. làmbatu la tudd. déggoo ma de dégg Cheikh Ahmad. maa ngi dégg-dégg boo dell ak man. làmb ji tuddatul làmb. lu mu tudd. du tax. parce que làmb léegi mbëri yi seen bopp. Ah. fi nga départ rek laay wax ci combat yi neex yi nga jot a takkale. maanaam man sama gis-gis mooy da ngay ñëw gis ñaari combat de choc yu neex muy ñaari xale yu tolloo génération tolloo nombre de combat peut-être kii sax mën naa am victoire kee muy laaj yaa ngi dégg ñu ñëw boo demee di contacter kee kenn la man Sa Thiès laa bëgg wala kii ñëw nga dem ci kee kenn la man kële laa bëgg làmb di mooy tax ma ne la. làmbatu la te ba pare entourage bi ñoo yàq làmb ji. parce que léegi entourage bi nekk ci yow ñoo lay commandé yow muy mbër mi waaw loolu tax ma ne la làmb ji léegi tuddatul làmb làmbatu la tudd Cheikh Mar. làmbatu la tudd. Ah. mais kon su bi nga xamante ne moom mooy caatu yoof mhm. ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Mama Lamine. Mhm. lan mooy problème bi. baa jànq la boo demoon ne tey tegal ko spectateur yëpp ñi nga xam ne amateur làmb lañ xam nañ ne làmb ju neex la. mais bul yam foofu kese. demal xam nga làmb ji dafa am ceeb bu sew. nga ni. am riz parfumé am ceeb bu dijji am riz taysé <laughs> donc ceeb bu sew bi aussi dañ leen a war a boole ci làmb ji ndax seeni combat. Hmm. Cheikh day métti day neex day far day fuur day am bëri te dama xale yooyu dama cee gis ay xale yu kàngam yoo xam ne avenir làmb ji fi mu toll ni tôt ou ci lañuy ñuy bokk. maa la ko wax xam nga. bari nañ bari goo xam ne maanaam damay dëxëñ rek ci ci ci génération bu ndaw bi ñu nekk nii. dëxëñal ko xam nga boo demee écrit kaay baax. waaw nga jël fa 2 hmm. jël fa Nokia. Hmm. dem jël site bu Kër Mbay faal hmm. yaa ngi dégg baax li ma la boo jigee foofu wàcc wàcc wàcc eh, kër Kër Massar yaa ngi dégg jël ay booy yoo xam ne Kër Mbay Fall lañ nekk. site bu Kër Mbay Fall ma nga fa. saa boqal bu butaay bu si nga mën nga fa yéeg nga ñëwaat biir parcelle biir Grand Yoff xoola ñang baala bu dóor dóoraat yaa ngi dégg xoola booy bokaa xoola booy liis njaago xam nga ah xoola soq deux bu écrikaay baax yaa ngi dégg xoola yanqaas xoola trompeur deux xam nga boo dafa réparé deux hmm. donc xale yooyu tey nga xool leen tey génération boobu ak seeni combat ni mu méttee yaa ngi dégg ah, ay arde bu gol fa gaynde yaa ngi dégg da ngay xool génération boobu yëpp ay Pape Sembène booy boobu nga xam ne bu jugee waa Inti 3 yëpp maam donc génération boobu tey képp kuy tëgg combat boo leen dugalee sa journée la nga ci am di nga ko bëgg. Mhm. maanaam réussite totale di nga ko ci am ndax am na public. Mhm. ñang baala bu dóor dóoraat am na public. Mhm. am na mbooloo te day bëree combat am jeex. yaa ngi dégg donc combat yooyu zone technique donc dafa am ay combat yoo xam ne. maanaam génération bu ndaw la loolu la ñuy wax ceeb bu sew bi léegi nag boo ñëwee ci ceeb bu dijj bi bi nga xam ne maanaam maanaam bokkut ak yi parfumé bi maanaam da ngay ñëw gis fa ñoom Ibra Ngaabu hmm, gis fa ñoom Thierry gis fa ñoom Wose Diaba maanaam dafa am génération bu ne ak qualité bi nga toll léegi nag boo ñëwee ci diggu doom ji da nga fay fekk ñoom caatu yoof ñoom caatu eh, ñoom Mama Lamine ñoom Jackson ñoom Njaay Tine xam nga maanaam da ngay lim ba doo xam li ngay lim fu mu toll ak nan la toll donc bu lu mel noonu boo ko amee ci journée nga jël ci ndaw yi jël ci diggu doom yi wut sa benn spécial baax def ci Cheikh Omar kooku doo ko rëccu. kooku doo ko rëccu. ak combat nu mu mënti mel day neex waaw. ak combat nu mu mënta mel doo ko rëccu alors mbokk yi promoteur yaa ñuy seetaan yaakaar naa ay combat la yoo xamante ne daaw defoon nañ ko mag maam lees ay combat yu neex daal di ci jóge mbokk yi mu nekk ay combat ndaanaan. Hmm? ñu ngi fàttaliku combat yi nga xamante ne bébé Birahim Ndiaye Tine hmm, ah? gis nañu caatu yoof euh, ki nga xamante ne moom mooy bébé Julde hmm, ah? yooyu noonu ak yeneen yi nga xamante ne ko ñu waxtaanoon daaw yi ñu waxtaanoon daaw ren jii tamit yi waxtaan waaw dañoo bëgg promoteurs yi gis seen bopp mais man xam nga combat yi sama problème coach mais entourage da ngay wax ak kii da ngay wax par exemple ku mel ni man damay damay cité ah da ngay wax ak ku mel ni caatu yoof mu ne la bugguma Jackson Jackson ne la man caatu yoof laa bëgg mm-hmm. bëgguma njaay tiin mm-hmm. ñuy wër-wërloo boobu mm-hmm. caatu yoof ne Mama Lamine maa ko raw ci làmb Mama Lamine ne bëgguma caatu yoof mais lan la ñuy joué foofu maanaam déggoo sama commencement émission deer am dégg-dégg seex dama ne làmb ji du dutul làmb xam nga làmbatu boobu ñuy làmbatu bu ñu làmbatoo ba sës ba nga xam ne lii moo fi mënta ñàkk dañuy doog a jël parce que nit ki boo xoolee ci côté palmarès nit ki mun la ëppale palmarès ba nga bëgg koo bañ moo tax ma ne làmb ji tudd tudd làmb làmbatul a tudd te entourage bi parce que boo xoolee mbër mi da di may xel ba mu ëpp. parce que luy problème mooy tey bu entourage bi waxee mbër mi ñoo nañ ah man ñu ngi dox sama combat man ak diw entourage bi ne ko bëgg a jël bu lëkkatee bu ko mbër mi jëree loo ci xaw entourage bi dañ naan waxoon nañ la looloo tax entourage bi tey fi mu toll entourage fi mu toll nii ci mbër daanaka combat yu bëri ñoom ñoo koy xaw a xajamal moo tax moytantu bi bari. moytantu bi bari. waaw parce que combat njëlbeen yi. Mm-hmm. sama classe dañ ko bëgg. dañ ko mais adduna adduna moo ko bëgg. waaw parce que ku bëgg lu yomb doo ñëw ci làmb ji. mais ma dem. Mm. ma dem ma dem coach. Mm. <laughs> léegi dafa may jox autorisation pour ma dem quoi coach alors coach ñu gis ni loolu yéeg na. ba ci mm-hmm. combat yu mag yi. Mm-hmm. tey ku mel ni guy gi. nee na du euh, gestu ki nga xamante ne moom mooy. Euh, rëg rëg nee na moom ëmmat seen la bëgg. coach. ak Eumeu Sène fi mu toll woon nekkoon roi des arènes. est-ce que mm. combat yooyu. Mm-hmm. aussi du metti mm-hmm. tey ku mel ni euh, combat Sa Thiès. Mm-hmm. rëg-rëg waxoon nañ ko fi. moom tamit ne du jël rëg-rëg. tey rëg-rëg guy gi gi fi muy làmb noonu. est-ce que du doon loo xamante ne dana jafe aussi. noo xam nga du jafe xale bu bëgg bëri nee naa la rëg-rëg képp ku ko yàlla booleel boo ñëwee boo waxtaan ak moom moom par na bu dee waxtaanu làmb rek la waxtaan te yàlla rek tax. nekk fi di ciblé ay adversaire jëm déwén lépp loo xam ne raisonnable mooy tax mooy tënte bay tax parce que Reug boo xoolee ak guy gi Reug Reug na fee laaj guy guy gi di ci xaw a gis boppam. Mm-hmm. mais pour yow du yoon. waaw mi ngi nii mooy li ma rek xam nga làmb tey bi ngi nii dem na ba nga xam ne làmb jaa ngi nar xaw a dëgër léegi mi ngi xaw a may xel Reug Reug moo tax man ne bu demee ba xamatuñ fu ñu jëm ci la ñuy làmbatu ci làmb ji dañuy dellusiwaat mm-hmm. mais mooy tënte bi nañ ko éviter boo bëggee dëgg-dëgg. bu ñu bëggee làmb neex combat soixante neex ñu dellusiwaat làmb ji genre Balla gay booy ñaa ñëw yaa ngi dégg Eumeu Sène tamit dellusiwaat Eumeu Sène seen Tine dara dàq nga ni waaye yow tamit Eumeu seen Tapha Tine ma ne la lii dellu si làmb mooy mi Balla gay man maa ne la grand contre petit dama toog sama kër xalaat ko ne lii indiwaat saison yi lii indiwaat neexte làmb lii ci la bokk muy grand contre petit dama am sama benn grand boo xam ne dañuy waxtaan. Hmm. moom bu demee bu ma bu ma dégloo ma nekk tel mbër nee na du jël kii. kii hmm. nee na il faut mu xool affaire yi. mu ne ma hmm. mbër yi ay tàppet lañu. mais est-ce que est-ce que est-ce que réellement la lan la loolu loolu lan la. moo leen di sas. ant mbër léegi balaa ngay wax ak moom sax wala ngay dem ci manager di wax ak moom dana la boole rek benn parent wala benn dijaayam wala yooyu. làmb laa lay wax mais normalement dans les normes boo doon wax ak mbër tey mbër ma ca manager la la war a yabal. nga wax ak manager ba d'accord manager bi doo ko woo ne sa combat diw ñu ngi ciy waxtaan ba xam baax na wala baaxul nangam lañ ma fay mu joxe avalam parce que day fekk mu xam ne leer na mën na dara ci mbër mi bu mënul dala ci mbër mi nag day jéem a wut yoonu mooy tënte yow tax mooy tënte bari mais ay combat yi neex mi ngi fi combat suspense yi neex mi ngi fi combat njëriñ yi neex mi ngi fi waaye koo dem seeti man bu ma demee seeti par exemple ma dem seeti caatu yaraax caatu yarax ay naataangoo mu ngi fi ma kaleel ko combat bu baax damay bañ a tudd keneen beneen tur mu ne man doomu dàngu laa soxla boo demee doomu daam di ko xanaa doomu daam dana xale bugg maa may xaalis. loolu la demee dëgg la moo tax làmbatu la ñuy def léegi nekkul làmb. doomu dàngu. Mm-hmm. ma ne ko doomu dàngu franc. Mm-hmm. combat mu ne ma cheikh. Mm-hmm. combat la ci dayu. mais dama koo raw ci làmb. li ma tegle ci ay victoire. moom xaaj bi teglewu ko. ma ne ko mais combat boobu njar ndéem la. mu ne ma du question mënu ma fee nekk tamit taxaw benn place di wër njar ndéem. mu ne ma moom Modou Anta lay ciblé. noo gisee loolu. xam nga li ma mooy loolu boo demee ci Modou Anta Modou Anta la Sa Thiès lay ciblé. làmbatu la def fi mu toll nii làmbatu boobu ñuy làmbatu nag mooy yàq làmb ji parce que da ngay gis combat de choc. doomu dàngu man ku ma joxoon ñeenti milliards moom Farouz. du combat. Mhm. Franc mi nga wax ak Bébé saalum du combat. du combat de. parce que non xam nga maanaam nit ki da nga koy daan avancé. Mhm. mais doomu daanga bi mu daanoo Forus fan la ko yóbbu. laaj ko ko xam nga yéen di ngeen di. poser question bu donné bu posez pas les bonnes questions. non non mais on pose la les xam nga fan la nee na dafa doon bañ a ana blanche. waaw gars indil ko avance bi képp koo xamante ni tàllal na la loxo nga bañ. parce que yi dañ koo ragal day wër di dóore man leer na a ne bañ koy indi avance wëris am na yeneen campagne ko waxoon mais dana la xaw a xeet moo tax dana làmbatu nee naa da ngay làmbatu mujj fa ngay dellusiwaat foofu dul baax parce que doo avance nit nag ci la ngay def matière bi ngay liggéey dangay ñaan yàlla avancé ci muy doo doomu dàngu kan la war a bëreel pour yow fu mu toll nii non xam nga boo ko nombre de victoire wala ñu bokkal ñu mu war a bëre catégorie nee naa la fii mbër yi nekk Sénégal li ma wax bind ko téye dañ fi ñu toog naa la ko wax mbër moo fi gis am na juróomi adversaire yu war a bëri. doomu dàngu benn laa la ciy jox. doomu dàngu bu laajoon Tyson 2 tey Tyson 2 daan ki Yékini laa jëm ñoom ñëpp noonu la ñuy def léegi. làmb ji mooy ndax nee naa la ñaar tànk lay doxee toog ba càgg ñi ngi doxee benn tànk ci mbapati ko ñi nga jëm. ñani maa la ko wax. boo jëlee genre génération bu ndaw bi nga xam ne ay xale yoo xam ne ay der lañu. Hmm. dama bëgg ko am der dama bëgg combat der combat suspense nga jël ceeli booy abooy bu kaay baax booy jobaas moor cargo xam nga saaru xale yooyu day ñëw jeexal sa combat sa journée neex ñu indi la supporter bëri la ñuy bëri dem jibbi xam nga ay Koña 2 Oninga xam nga Kaani sa Sadat bi nekk songaan gay ci Rufisque lu mu jàpp mu jeex nga ni combat bu mujj gis nga ko ci arène nationale bi baat ak tontu la def ki muy bëri donc genre suspense yooyu laa bëgg mais jël ay ponkal fexeel ñu bëgg leen ñu bari nga bañ seen saison yàqu nga dem di leen contacter ñu naan noo dama seeti ma diw làmbatu la ñuy def. làmbatu làmbuñu. làmbuñu maa la ko wax. donc su mu nekk lu ama am solo ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mbër yi mbër yi aussi li coach wax bàyyi làmbatu bi def làmb maanaam di jël combat njarndee bi parce que aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw te ku mel ni Modou loo ku mel ni Balla Gaye ah bu ñu cité ak ñaar ñooñu ay exemple lañu ci làmb Eumeu Sène tamit noonu la demee seen i combat mësta yomb ay combat daanaan lu ñu jël ba egg fi ñu egg tey gis nga seex beneen combat yi nga xam ne mooy combat yi diggu dóom yi mm-hmm. combat yi nit ñi dañ leen dul bàyyi xel te combat yi neex la ma ma jox la benn anecdote tuuti rek mm-hmm. tey boo jëloon petit ñaar jox ko ndëngalo am na pokala pokala bi nekk faalaay balde mm-hmm. boo ko jëloon jox ko laaj koñaa man làmb laa lay wax maanaam ni ma leen di toppee mathématique laa leen def théorie chaque combat day suivi di xam ne lii baax na lii baax na ma panacé ko def ko cocktail bu ma ko defee cocktail pare damay pressé salade de fruits bi teg ko jox leen <laughs> xam nga parce que xoola Pape Thiam laay goote lu ko dàq. dara daaw ñaari zayan lañ ñoo tolloo gabari tolloo doole. te loo ci xamul Pape Thiam mobilisation bu extraordinaire. waaw dégg nga laay laay goote départ Thiès ngeen ñëw ñu bëri ko ci arène nationale bi. xam nga dafa am xale yoo xam ne waruñu leen a fàtte ci làmb xoola bulldozer. bulldozer foo leen koy bàyyi. Hmm. bari na bu ma leen limal duñ jeex caatu waalo gis nga ni mu def ñagas barki démb ci arène nationale bi xam nga ba tey boo jëlee combat yi mel noonu di xool ni nga koy panacé ni nga koy ni nga koy calee di xool ba xool ba am ci combat suspense bu neex loolu la nit ñi soxla. Assane Ndiaye. yaa ngi seetaan. waaw Fallou Ndiaye. Hmm? yaa ngi seetaan waaw Abdoulahad. yaa ngi seetaan foo foo foo bàyyi deux giga eh ah caatu yaraax mi nga xam ne am na doole am na taxawaay bëreem ku jàpp mu jeex koo kay ci. xam nga combat nee naa da ngay indi. luy nga xamante ne unité 13 yëpp ci ginnaaw da ngay indi luy libéré nit ñi. Hmm? waa indi loo xam ne da indi amateur yi seetaan làmb seetaan bëre nga daan ñu ñibbi ñoom loolu la amateur soxla mais bi buuxante rek. ñëpp noppaleeku. noo ñun bëgguñu ko. combat jànq yi ma la wax daal fi mu toll nii dëgg-dëgg ci génération bi ñu nekk nii nee naa la am na ceeb bu sew am na riz parfumé am na ceebu Tyson. d'accord coach. alors mbokk yi gis nga li nga xamante ne moom la coach indi mu nekk lu am am solo nee na mbër yi euh, bëréewuñu ñu dañuy mbër yi bëréewuñu làmb ñu dañuy làmbaatu voilà <laughs> en coach mm-hmm, mm-hmm. làmb ñu dañuy làmbaatu alors mbokk yi mu nekk loo xamante ne lu am am solo la indi na ay combat yoo xamante ne yaakaar naa bu ko promoteurs yi xalaatee mm-hmm. daal di euh, panaché yaakaar naa dinañu am ay journée yu waaw te tuuti seex ñu ñu wàññi aussi entourage bu ñu ciy dugal ndax man coach mbër boo jógee boo jëlee sa bopp jox ko jox ko jox ko manager mm-hmm. lu ñëw rek demal ca manager bu manager bu baax ci yow dana leen a bëreel parce que prix bi ñu ma fay baax na te mosoo koo bëree. Mm-hmm. mais bu dee sa entourage ngay àndal ba pare doo ko dem ci manager sa entourage dañ lay teg ay conditions. Mm-hmm. conditions yooyu ñu lay teg nag mën na laa bañ a arranger te bis boo fippoo ba jël combat bi dañ naan loo xam ne nga. loo xam nañ la ko. mu nekk mais est-ce que bi tamit waruñu. waruñoo bàyyi mbër mi ak manager bi aussi. non xam nga moo laa lay wax loolu mooy yoon manager bi yor mbër xam na carrière bi xam na fa mu ko jàll xam na ligne de conduite am donc moo tax ma ne la entourage bi condition yi ñuy téye mi parce que dañ lay conditionné téye xam nga donc entourage bi ñu la conditionné téye la yow dangay dem ba yenn combat yi sax dalay leer na yow mbër mi boo ko jàppee mu jeex mais entourage nee ah bu ko jël demal xool li gën a rëy. mais en tout cas yéen ñi nga xamante ne yéen ngi jokkoo ak Mame Less mhm. continuer leen di ko jokkoo faralul kenn dëgg la écurie sax loolu la leen di wax faraluma kenn li ko intéressé mooy sport li ko mhm. intéressé mooy làmb continuer leen di jokkoo ak Mame rek la ragal bu weesoo man euh, mën na mën na gérer ku nekk alors maam looy tàggatoo non di leen gërëm di leen sant ci émission yi ñuy def ndax làmb tax koo jóg mhm. te ñu bëgg làmb jëm ci kanam aussi te askan bi ñuy waxtaan la ci wàllu làmb Euh, ñi ci bëri ñu ngi ñuy suivre di ñu bëggee te ñuy ñaan yàlla mu gën a yokk ngeen di gën a am contentement yaa ngi dégg di wax aussi nit ñu fi wax ngeen bañ ñu ko xeebee yaa ngi dégg parce que day am solo ñu xool ni làmb ji doxee ak ñu làmb ji avancé ñu bëgg ñu yokk ko ci mu nekk benn suspense di gërëm suma rakk Cheikh bu baax di ko gërëm bu baax di gërëm xaddam Diop suma suma cousin depuis Toulon yaa ngi dégg ak waa daar Moussi yëpp maire Khady Ndiaye docteur maa ngi koy gërëm di gërëm Ndeye Diop depuis daar Moussi di gërëm sumay frère laa Diop maa ngi koy gërëm Malick depuis Italie di leen sant yéen ci taxawaay bi ak passé bi ngeen am ci liggéey bi ah, di nuyu sama booy El Baax di leen sant Cheikh Omar Baax di leen bëggee. di leen euh, béggee bu baax a baax a baax alors mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan yéen ñi nga xamante ne yéen bëgg a làmb yi seen commentaire ñu ngi koy xaar ci suuf ngeen wax ñu yéen tamit yan kombaa moo leen dàqal hmm? yan combat ngeen foog ne wax nañ ko fi moom mooy combat njarndéem yi yaakaar naa yooyu dana am solo donc ñu ngi leen di xaar parce que émission bi yéen a ko moom li ñuy jéem nii yëpp yéen ñu ko gën a xam di leen gërëm di leen sant di leen wax nañu continuer di respecter mesures d'hygiène yi di leen santati di leen wax ni ci beneen numéro Vox Arena peace. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.